di nuyu ak ziar quand même suñu sëñ Bass Abdou Khad si su suñu tur waaye turu nag kilifa yi ñu fi yebal ndaxte bés bu mel nii dañuy sas ñu ñëw ci euh, këlu diine yi indi leen seenum ndokkeel ak seenum waaye bii tamit naam am na nguur gu bees mais ñu santuñu tamit ñu jël matuwaay yëpp ba fépp foo xam ne ñoom mënuñ faa teew rek ñu teewaleen donc tànk yooyu. mooy euh, suñuy kilifa ñooñu ñooñu yebal muy président de la république Bassirou Diomaye Faye muy le premier ministre Ousmane Sonko ak mboolem gouvernement bi yëpp euh, li si jiit rek mooy di la ziar bu baax Mbàkke di la ndokkale ci bës bi nga xam ne xam nañ ne bës bu màgg la te képp koo xam ne rek jullit nga am na jàngat boo ci mën a def muy sudee ku julit li nga ciy njëkk a jàng rek mooy ngëm-ngëm ndax fois ndax suñu maam Ibrahima foog naa nee ngëm-ngëm rek moo taxoon euh, mu jëloon doomam pour jébal ko suñu borom waaye ñu gis tamit a ah, soxnaam muy soxna soo xam tamit day nangul déggal borom këram su dee doom ji tamit foog naa ne doom ji déggal nay waajuram ndax nangul na ko li nga xam ne moom la ko suñu borom sant te loolu day tax rek ñu delluwaat ci nga xam ne moom la ñu war a njaboot gi war a war a nekkee. ginnaaw loolu nag ci bës bi nga xam ne mooy euh, bés bu màgg bi ah kilifa yi waxoon ñu tamit su ñëwee ñu saaku rek ay ay ñaan ci réew mi suñu borom def si def si jàmm waaye ñaan leen tamit ndax nguur gu bees foog naa ne ñaan moo ci jiitu ba lépp loo xam ne yéene la ak mëbët suñu borom may leen également kattan guñ ko mun a eggale te mu nekk nag njëriñu askan bi yëpp Ah, lii nga xam ne nag moom lañ woote muy ay principe yoo xam ne noonu lañ ko bëgg a doxale ñu wax jub jubal jubanti ak liggéey temps yi ñu toftal ci liggéey ah te lool xam naa li ñu wax léegi rek loolu moom dëppoo na ak diine ndax suñu nee jub jubal moom wax naa ne diine euh, lool la loolu la woote ah ñuy gisit ne ah, askan wi ñu ngi ciy dugal seen loxo ci wàllu participation citoyenne euh, fan yi ñu génn rek foog naa ne misaal bi ñu wootee wàllu nettoiement yaakaar naa ne région bu jur Diourbel ah, desul ginnaaw rawatina fii nga xam ne mooy commune u Touba Mosquée ndax gis nañ askan wi génn nañ ànd kook mais ànd également ak commune Touba Mosquée nettoyer mais surtout euh, def loo xam ne waajtaay la ci mbënn mi yaakaar naa ne loolu mooy jëmale mooy jëmale réew kanam maanaam bañ a xaar lépp rek ci nguur ku nekk euh, li nga xam ne foofu nga war a féet nga def ko ci te loolu moom euh, Touba loolu lañ ko mos a xamee donc loolu yaakaar naa ne Euh, gis nañ ne doxalin boobu moom dañ fee fekk dèjà donc <laughs> njabootu Touba ñoom ñu ne ci kon yaakaar naa ne loolu amuñ ci benn xel ñaar ci participation citoyenne luy jëmal kanam naam nag am na ci loo xam ne état état loo warlu donc lu jëm ci wàllu kaaraange wala également ci wàllu mbënn mi muy nekk investissement yu diis ah am nañ ci yaakaar nag ndax dèjà chantier yañ tàmbale am desatu lu bari te ren it foo naa ne yàggul. muy euh, génie militaire bëgg nañ également ñu dugal seen loxo ci waajtaayu màggal gi surtout li ñuy toppatoo bassin yi ñëw nañ fi fan yee passé def benn mission de prospection pour xool ànd ko kilifa yi fan lañ war a mën a liggéey pour que tamit ñu gën a waajal nawet bi néew nag mënul am waaye nañ fexe ba waajal ko ba su amee tamit ñu mun ko mun ko dëkku leneen moom foog naa ne xam nga ko muy wàllu ndox naan ñi ci def ay jéego ministère bi yëg na ko ñu ngi ci xalaat nan la ñuy def pour jëlee ndox mu neex mi dugal ko fii ci ci dëkk bu sedd bi donc loolu foog ne projet la boo xam ne kilifa yu bees yi euh, am nañ cër boo xam ne daal ci wàllu ndox muy ndoxu naan wala ci wàllu inondation tubaa dina ci am wàllu rey xam nañ ko li ci des rek mooy sàkku ñaan ba mëbët yooyu nga xam ne moom la kilifa yi am jëmale ko ci dëkk bu sell bi suñu borom may leen kàttan ak mën-mën koo xam ne dañ ko mën a mën a mottali su ko defee comme euh, problème moom soo koy régler rek da ngay régler leen moo féete ginaaw nga nekk ci leneen te yaakaar naa ne ñoom jéego boobu lañ bëgg bëgg indi te incha allah rabbi lépp loo xam tamit coordination li ci wàllu région Diourbel dinañ ko ànd ak kilifa yi nga xam moom moo nekk fii ci Touba ànd kook également commune Touba Mosquée ak sous-préfet bu bu Ndam ah, ci waajtaayu màggal moom xam naa ne ñi ngi ci. donc yaakaar naa ne ñaari réunion yi jeex na li des rek après dañ si waxtaan nu ko bëggee rek après ñu xool bés ba gën a rafet def CRD ba njaareem àndaat kook yéen incha allah rabi euh, ba suñu borom yu buñu seeg jàmm ñu def màggal goo xam ne également ah mu nekk màggal gu mucc ayib di ñaan nag suñu borom yu ñu fekk jàmm incha allah rabi donc kàddu yooyu daal lañ bëggoon yëkkati di la ñaanal nag tamit ndaxte euh, yéen wi nga xam ne moom nga yore pour liggéey ko sa maam it suñu borom may la kàttan goo ko mën a mottali incha allah rabi ah di am mbégte bu baax nag di fi ñëw toujours te gis nañ tamit euh, jàppale bi si zaahir ak si baatin loolu moom mun gis nañ ko bu baax a baax a baax di féddaliwaat nag suñu coloré bopp mégalement également coloré njaboot gi nga xam ne ñoo féete Mbàkke Touba du ñu liggéeyal du leen koy dinkaat bu baax muy préfet bu Mbàkke ak su préfet bu Ndaam naam ñu ngi ñaareem ñun waaye ñoom ñoo ñu gën a sës fii Touba te umpente wuñu ci wàllu liggéey bi mais tamit ñu ngi leen koy dénkaat bu baax rek di sàkku ngeen ñaanal leen ñoom it ba mission bi nga xam ne moom la kilifa yi am teg ko seen loxo mu bañ a yàqu te may leen ci ndam loo xam ne day nekk njëriñu dëkk bi am nekk njëriñu taalib yooyu daal moom kàddu ñu bëggoon yëkkati si turu suñuy kilifa yi nga xam ne ñoo ñu fi yebal di am toujours nag mbégte di ñëw fii teewal teewal incha allah rabbi donc asalaamaaleykum taala wa barakatu. waaleykum wa rahmatullahi taala gouverneur de la région Diourbel di euh, Ibrahima Fall ñu lay nuyu bu baax mm, teg bi ci sa loxo yaag mboolem délégation bi nga àndal bépp tàmbalee ci préfet bu Mbacké Xaadim An ak suuf préfet bu Ndaam ak sëñ Abdoul Ahad Kam nga xam ne moo leen dalal ngeen ànd ak moom ci dëkk bi dina yóbbante nuyoo ci seen kiilifa yi nga xam ne ñoo leen fi yebal ci bis bi nga xam ne ni nga ko waxee léegi rek jiitu nga ci bis la bu màgg ci lislaam bis la boo xam ne sunna la ndax ci sunna la ci ci diine lislaam suñ boroom digaloon ko euh, sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inni ara fi ma anni azbahuka fanzur fanzur ma satara xaali yaa bati faal ma tuuma satajiduni incha allah min as-sabirin bisu tabaski kon bis la boo xam ne bis la boo ci laa ci lislaam di bisub boo xam ne wax na rasulullahi sallallahu alayhi wasallam wax na ne amul jaam yàlla gu gën a màgg defal ko li lim digle ci bisu tabaski moo tax bis de day bis bu diis ku ci agsi rek fitna ji nit ñi àndal kër kër jéeg yitti jéeg yëpp na ngay xam ne di saayu cosaan la moo ko indi kon ñu ngi leen di nuyu bu baax di sant di leen gërëm ci euh, ni ngeen ko baaxoo def ngeen defe ko bàyyi ko ci sëriñ bi Cheikh Mouhamadou Mountakha di ko ñaan mu yàgg fi te ànd ak te bu ngeen fa yemoon tam doon na sëkk waaye ndegam yàlla def na ñuy dox seen digg moom moo tax ngeen jóge fu mu yabalaat leen fi nga ñëw fi kon ñu ngi leen di sant di rafetlu taxawaay yooyu nga xam ne ak jéego yooyu nga xam ne def ngeen ko te suñu bilaar ke ñëwoon na fi ay bis yu ba leeral ma loolu lépp ñu rafetlu ko bu baax di ñaan ni ñu ko yaakaar rek ni ñu ko dëgmale rek yàlla suñu borom dimbali ñu ci kattanam ba. nu mu daa mel rek mu weesu ko te gëm naa ne mooy am ndax màggal moom bisu Serigne Touba la te moo ko faggul boppam Serigne Saliou Mbacké daa na ci wax kaddu yu solo daa wax ne màggal moom lu yomb organisé la ndax nee na eh, murit bu ne dana ba dana fex ba këram jekk kon nag loolu moom day ñaan ñu ak jag jàmm yéen itam taxawaay bi yéen ci daa taxaw ci seen bopp xam nañ ko. kon ñu ngi leen ci sant ci li weesu te ñaan yàlla rek magal gi ñu jëm itam ndax ci biir nawet lay tolloon ñëpp xam nañ fi mu toll ndax daaw le 5 septembre la woon fekkoon nawet bi di cate waaye dañ ci digg ba la kon wàllu mbënd mi rek yooyu moom faaw ñu bàyyi ko xel waaye comme yàlla def na yéen a ngi ci rek ci jéeg yooyu ngeen ci def seen bilaar ka leer na ko kon ñu ñaan lépp rek yàlla doon loo xam ne day jëriñ ñi dëkk ci dëkk bi ba ñu tàggook ndox. tàggoog euh, aw mar tàggoog ndox mu ndox nga xam ne di soxla ci yoon yi salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu. soo di. wal qalami wa